Maulud du besub magal besub yonante bi Ganasi adina ci masalikul jinan le peyambana ci ndigal serigne muntaha mbake Khalif General kul murid comité d'organisation bi jël na kay yépp ñuy xamal ni dinañ fa jang khasida jang alquran wacce ay kamil niko khalif bi santane ay kangam si kat téré serigne touba yi dinañ wone seen i mënin ñoo ngi xaarandi lu toll ci juróomi fukki junni si ay taalibe ci biir jumaa ji di Masaalikul Jinaan moo waral rek ñu samp ay bâche ci surface bi nga xamante ne toll na ci 6000 mètres carrés bu ñu sukkandikoowee ci kàddu kilifa yi. bernde yi lépp mot na ngir rekk màggal ku tëdd ki di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ren ngir bégal taalibe yi ci bernde bi rawatina ci séddale bi am na ay coppite yu bees yuñ ci indi bokk na ci ay campus yu ñu samp fu ne ci biir Masaalikul Jinaan ba kenn du jóg fi nga toog ngir rek mën xewlu lépp fi nga toog la lay fekk ci wàllu kaaraange tamit wér gi yaram ak cet comité d'organisation bi xamal nañ ne motukaay yëpp jël nañ ko ci béréb bi ak li ko ngir rekk màggal guddi Seydina Mouhamed ci juma Masalikul Jinaan ci Ndakaar moo